baax a baax ku ci nekk turam ak santam waaye di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax yéen ñi topp ci Leewtoo TV chaque jour international ak national ñëpp di leen béggee bu baax a baax a baax lii mbégte bi nag mooy leen indi li gën a fës ci xibaaru làmb noonu laay defal ne saraax ci journal suñu moom na ba xëyee ci xëdab mu njëkk la xëyee di ëmma seen borom taay si nga borom dof du wér dem nag ba mu ak mooy taskatu xibaar yi daal di wax la mu koy wax moom Eumeu seen nee na ko jour combat ba maay bëre maay xeex te maay daan la muy xamal supporteram nag mooy mu ngi leen di dopte waaye nag mu dalal seen xel bu baax a baax naa leen na seen xel dal ndax lu leen métti woon sama diggante ak Lac de Guiers numéro 2 wala lu leen métti woon sama diggante ak nga xam ne mooy Modou Lo jour combat ba le 27 mars incha allah ko fay ci Bombardier bu baax a baax ndax jaaroon nañ ma moom ñamante nañ xamante nañ bu baax baax fa ñu jëm nag li ma fa defoon rek laa fay defaat Bombardier moo ne woon jeexaat foo foreb doom delloo fa sab loxo waaye bii paa man mii di ëmma seen borom tay si nga man maay jeexaat te maay foraat incha allah te noonu nag ne mooy Bombardier ba léegi nañuy desandi seen combat bu yor am le 27 mars bii di jëm ki xamante ni nag mooy Bombardier doonoon a xaar adversaire am di Eumeu Sène ca Mbour war koo dalal seen dernier face to face ca Mbour géej ñi xaar ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène ba sonn gisuñu ko dégguñu ko xamuñu fu mu nekk ku nekk di naan fan la Eumeu Sène nekk waaye nag li ñuy xaar mooy ñoom ñaar seen combat boobu conséquence bi defet bi nar a am seen diggante ñoom ñaar ndax mu ngi ñaan kenn daan ci morom bugguñu nul bu kenn daanoo kan moo ci gën a suuxandi ci ñoom ñaar te noonu nag combat bi nga xam ne dañ ko monté kan moo ko taxawal ki nga xam ne mooy Ousseynou Ngom ngoom Déthié moo daal taxawal boobu le combat kan la ko nar a amale bind ne suba la korité wala bu ñu korité ba ca ëllëg sa su ma déggee olof bu baax a baax maanaam après la korité maanaam lan demee korité bi kan fa nar a boole maanaam Cheikh Niang ak ki nga xam ne mooy Sangu Ndiaar ñoo fa nar a bëri ñoom ñaar di leen naan na combat bi neex ndax na bu ama am solo la nar a nekk ki nga xamante ne mooy journée de feu ba amoon fi nga xam ne mooy ngalaandu ju ki nga xam ne mooy sapeur moo éteindre kayta en deux minutes maanaam moo ko daan daal di jël raw gàddu ga daan ko jël bu amul benn werante moom nga xamante ne ni mooy sapeur ba léegi nag galaa bi nga xamante ne nii Sidi Jaxate Jaxate Kaba Yéeri ca Jurbel ah suñu dëkk bu sell boobu noonu moo fa daal taxawal combat bu mag waaye combat bu neex kaa fa jël raw gàddu gan mooy doomu Mbàkke doomu Mbàkke nag kan la daan moo daan ki nga xam ne mooy buubu caski <laughs> buubu caski turam wi umulaay boo amul def ma amelu may def moo fa daan nga xam ne mooy buubu caski ba léegi nag ki nga xamante ne mooy père Max Mbargaan moom mi nga xamante ne mooy ménagère kii nga xam te ne mooy Siteu bu lamsaar phénomène ba tarkindaa bi la muy xam na ci journal dak mooy bi ñuy woote naan digganteem ak ki nga xam te ne mooy Diène Kaïré ki nga xam te nii mooy Boy Kaïré dañoo bëgg combat boobu taxaw amateur di ko bëgg amateur yi soxla ko ki nga xam ne mooy Père Max Mbargane rek moom écarté na boobu opportunité maanaam Siteu bëtam jéggi nag ki nga xam ne mooy Diène Kaïré nañ jël waxu Diène Kaïré daal di ko tegee neen rek ñoom seen bët am na feneen fu ñu ko teg fañ teg seen bët nag mooy trois promoteurs yi nga xam ne nag ñu ngi dox combat bi dox ci diggante Siteu bu Lamsar ak Papa Sow bu jàmbaar bu Wrestling Académique mu ne Père Max nag ca arène nationale bu ñu ko dékkee micro nee na trois promoteurs ñu ngi nii di waxtaan ci li nga xam ne mooy combat war koo bëgg pour taxawalaat ko nee na kenn ci promoteur nag moom moo ci gën a sore waaye moom lañ gën a am yaakaar ne moom mooy tëgg làmb ja ñu tudd ay tur nag mënul tudd benn tur ndax dañoo nekk instant bi ci ay négociation te sori nañ ci lool lool lool maanaam du yàgg dara combat boobu dinañ dégg fan lay mujj waaye wanent du mujj gëtam nañ yooni yàgg te noonu nag ki nga xam te ni nag mooy waral mbaboor bi mooy borom wax ji di Siteu tarkindaa bi borom lab saar moom nag mu nga fee ci États-Unis ba léegi nekk séjour am ba léegi ñibbisee ko suñu gaal la père Max wax di wax nag nee na ñu xaarandi ki nga xam ne mooy Siteu ndax léegi mu ñëw ci suñu gaal bi du yàgg dara bu ñibbisee nag moom mi nga xam ne moo war a mboboo dina tontu ci lépp tontu ci combat bi dina dox ci Papa Sow dinañ bëre wala duñ bëre tontu ci li nga xam te ne mooy li amaatari yi bëgg moom mu bëre ak nga mooy Diène Kaïré ca noonu nag 12 ans déjà fukki at ak ñaar bi nga xamante ne ni nag Balla Gaye numéro 2 infligé na à Modou Lo première défaite am Balla ca Demba Diop moo njëkk daan Modou Lo ginnaaw bi mu teglee 15 victoire musul dégg mu ñor ki nga xam xamante mooy Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye waaye l'ex roi des arènes moom moo ko njëkk daan kañ la ko daanoon dimanche 21 mars 2010 kon tey jii lundi 21 mars. 2000 dimanche 21 mars mën nañ ne kon combat boobu am na 12 ans anniversaire boobu nag ci Balla Gaye lay neex waaye du mën a neex ci nga xam ne mooy Modou Lo ka jëm nag mooy nëpp adversaire nag faama bu ma war xeetaan noonu la tudd nëpp la tudd nëpp <laughs> nëpp nga kan lay bëreel bu ndaw bu ndaw ñoom ñaar kan la nar a bëreel le mars mën naa ne samedi bii nu jëm ci avant Bombardier ak nga xam te ne mooy B52 de Mbour sëgg samedi ba nag nëpp ak ñaa ak bu ndaw ñoom dinañ fa laalee incha allah. ba léegi nag dañuy dem fi nga xam ne mooy Adrien Senghor Adrien Senghor nag ku ko xam xam ne cosaan a fay am ku ko xam xam ne lutte simple cent pour cent moo fay am ka fa jël raw gàddu ga nag dikk nga xamante ne mooy Dame Sène Dame Sène nag écurie Manga 2 la nekk ca parcelle mbaru parcelle mën naa ne kan la fa daan nag Thierno Mendy la fa daan moom nag ba mu jël raw gàddu ga ñibbi na këram ak 500000 maanaam xaaju million téeméeri junne ba mu jëlee raw gàddu ko làmb da mujj naa ne asuduma yóbbu sama mag yi jiiri mu dem bëri ndax mu ñuy indil téeméeri junni ci benn guddi kam daan nag nga xam te ne nii mooy jël defet ba daal di ñibbi kam daan 350 mille la yóbbaale bëri ngeen am ngeen dam waaye seen kaf ak daal dina fay duul di ko naan bon courage bu déwénee mu def xam bu ëllëgee sa la parce que làmb moom duñ ne déwén dimanche ba dimanche day am sax dimanche day rek mu daal di defar waa dem bëri jiwaat te noonu nag ki nga xam ne mooy daara ji daara ji kan la nar a bëri joor Dior kan lañ nar a ñoom ñaar lan demee tabaski fan lañ koy bëree lan demee ki fii lañ bëree biir Birkilaan nag ku ko xam-xam ne mën naa ne nekkul biir Dakar génn nañ Dakar ñoom nag lan demee korité ñoom ñaar daara ji ak hôtel Dior danañ fa daal di laale ba léegi nag yaa nar a laale nag te laale bi nar a métti ñëpp di ko xaar muy soq ak franc meilleure affiche mën nañ ne affiche bu dàq ci affiche yi affiche espoir bu dàq ci affiche moom la ki nga xamante ne mooy structure jàmbaar production daal di taxawal mu daal di koy ñi daal ci mën nañu structure duñ ne jàmbaar kese ñoo fa nekk waaye waa Pikine a nga fa comme ni nga ko waxee waa Parcelles a nga fa ñëpp a nga fa ñoo boole composé di tëgg ay làmb waaye seen première ñëw nag dañoo seen dóor bu dal tëgg ki nga xamante ne nag mooy franc bu jàmbar Wrestling Academy ak ki nga xamante ne nii mooy soq bu xam sa cosaan ñoom ñaar nag seen combat mën nañ di xaare mu nekk baa bu méttee métti métti la may mujjee nag ci journal suñu làmb di ko dajee mooy nag ki nga xamante ne mooy jee ak Eumeu Sène seen face face ba ñëpp noonu xaar waa Mbour ñëpp kontaan ci di xaar ki nga xamante ne nii mooy Eumeu seen pour mu ñëw ñu def seen dernier face à fecca Mbour Géej kii di ji daa def ay préparatifs am waaye Gaston Production def ay préparatifs di xaar adversaire mu ñëw mu daal di koy dalal waaye nag la jaaxal ñëpp mooy gisuñu Eumeu Sène dégguñu Eumeu Sène xamuñu fa Eumeu Sène jaar dem bañ ko laajee ne ko Eumeu seen lan moo tax ñëwoo lan moo waral ñëwoo mystique bi nga doon daw wala mu ne déedéet dama demoon voyage ba ma demee voyage nag temps bi ma ñëwee Dakar mënu mu ci woon xajal pour dem ba Mbour ndax damaa guddee ñëw ndax nag fa la demoon ñu ne Casamance lu mu fa doon def uti ay mystique ku ndëbin rey sa maam sama yaay nee nag foo séenee lu ñuul dangay daw waaye la may jeexal nag mooy journal ki nga xam ne mooy journal record record nag kami indi nag mooy ñaabu ndaw ñaabu ndaw nag ba mu daanee ki nga xamante ne mooy rëm samedi passé ñaabu ndaw na mu ko dëppee booy ñaang numéro 2 mu tuddee boppam ñaabu ndaw daan nag ki mooy rëm samedi passé ñi ne nag booy ñaa bu ndaw wala bu ñaa bu ndaw monte en puissance maanaam fëgg na ndëndam daal taxaw yéeg wuyu luur yi ca kañu jeexale nag mooy bébé julde battu part Brise de Mer dimanche passé Bébé Diouldé nag descend en enfer lan moo ko waral dafa tegle ñaari défaite ñu gëj ko gis ci làmb ñëwatul ba ñi naan bàyyi nag ñi naan bàyyiwul ba mu dellu si waatee nag daje ki nga xam ne mooy Brise de Mer ñu doon yaakaar mu daan pour mën a jugaat wala mu daan pour mën a delluwaat ci làmb moom nag njuy dafa am brise de mer moo ko daan kon maanaam tànkami mu ngi ci biir saako yi ñu naan nag bébé Diouldé descend en enfer ñu koy ñaanal jàmm bu baax a baax xam ne làmb noonu la dem defaruwaat daal di ñëwaat làmb ñëpp làmb ñëpp a ko bokk ñëpp ko moom damay di bégee bu baax a baax internet yéen ñi topp bu baax a baax di seen revue de l'arène chaque jour ci Leewtoo TV di leen jaajëfal bu baax a baax a baax international nee naa leen ak national pourquoi may wax loolu chaque jour parce que ñi ñu topp du Sénégal rek àdduna bi ñëpp ñooy suivre Leewtoo production waaye Leewtoo TV fi nga ko jàpp foofu la du feneen fu dul fii information fii lay neexee Ndeye Mbacke Diop moo leen koy jox kontaan ci yéen bu baax a baax sant bu gërëm sama caméraman bi Fama Dramé damay bëgg ci bu baax a baax a baax umu laay maxtaar sama monteur bi damay bëgg ci yow bu a baax noonu def jox leen dig daje ëllëg incha allah di leen ñaanal ko sàkku yéen